jàngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum lépp soxal xibaar yi nga xam ni dafay woy di am ci dossier Ousmane Sonko bi nga xam ni tey jile eh, la waroon a wuy ji ngir amal ay laaje ki tontu ci digganteem ak procureur xam ngeen ni ci suba ba léegi Sénégal yi bare bare ñi ngi dégg ñu naan Ousmane Sonko ma nga fële ca section de recherche bu Colobane waaye pour xamle ni ak xabaar yi ñu jot eh, foofa noonu le amul lenn lu ko fa jotale ak dossier bi ndax bu ngeen seetloo section de recherche bu Colobane pare nañ ca dossier bi bu yàgg a yàgg lenn luñ def di ko ca dindi euh, commandant compagnie bu Dakar moom moo yore dossier bi ñoom itamit ñoo war a saytu liggéey bu Ousmane Sonko euh, buñ ko sañee wax ñu ni foofa xëy na dañ ko fa tegandi liggéey bi ak enquête bi mi ngi nekk ci commandant bu compagnie bu Dakar pour mu leer kani fële ca section de recherche moom pare nañ ci liggéey bi bu yàgg a yàgg amatul lenn luñ cey def di ko dindi bu ci xabaar yi nga xam ni ay source la yu wóor a ñetteelu dossier bi ñu ubbi soxal soxal mbirum Ousmane Sonko fekk si ñaari dossiers yi nga xam ni mooy lu jëm ci wàllu viol ak euh, menace de mort bi nga xam ne Adja moo ko déposé woon di plainte pour Ousmane Sonko beneen dossier bi nga xam ni ubbi nañ ko ci Ousmane Sonko mooy trouble à l'ordre public loola njort nañu ni mën nañ ko cee topp muy ñetteelu dossier bi nga xam ni jombul dinañ ci déglu Ousmane Sonko lu jëm ci mbiru Ousmane Sonko ba tey mën na fanaan foofu la ca section de recherche euh, ba Colobane gis ñu yor ay paaka wala boog ay yet la ñu yor te defe naa ni police wala gendarme kenn xamewu leen yor aw yet wala nga yor li nga xam ne mooy xeer li ngeen xamee daal mooy seen fetal ak grenade yi nga xam ne dinañ koy faral di yor ñu gis euh, euh, yi dañu gis ay ponkal yoo xam ni dañu yor ay yet euh, nekk ci mbedd ndakaaru yi ñu wax ni dafa am ñu leen fa yabal loolu itamit yónni yàggul ndax jombul lépp dana leer kan moo leen wàcce ci li nga xam ne moom mooy ci tali bi waaye mu am beneen oto boo xam ne sénégalais ñi ngi ko doon gis kenn ku ci nekk naan police ñoom ñoo ànd ak ci ay leeral ci gëstu yuñ ci def di wane ni oto boobule Eh, ñuy gis mu weex te ña ca nekk ñëpp duñu ay nervi ay policier lañ bokk Gris Bordeaux mi ñu doon tudd ci wàllu nervi yi ba wax ni eh, masque bi ngeen di gis kii masque wu ci photo bi ñu wax ni Gris Bordeaux la moom gannaaw ba loolu génn na def ay leeral ci yëf yi wax ni laale wu ci tàqu te ci jamono jooju nga xam ne sax ci la yëf yi di am ma nga woon fële ca police bu Pikine doon taxawu kenn ci mbër yi nga xam ne dañ koo tuddoon ci coowal foo biyee fële ca p Gris Bordeaux ñu del si wax bu amee Gris Bordeaux ci lépp lu ñu koy dégg ci àddina li des ci àddinaam lu ñu koy nawee la doom waaye bu ko dégg ci ñàkk bopp yi encore une fois ki def lii bu yaakaar ne day set day nax boppam dama koy topp jusqu'au bout bépp mbër boo xam ne cité nañ la ci jafe-jafe yi loolu la ci fekk rek na nga ko da nga ko wéetoo xamal ni benn responsable bi gënu la ko te bokkuloo ci kuñ ci xàmmee ban la jàkk ni xam ne yow mbër sàngam la bokk nga ci yii ñi nga xam ne ci yii ñuy dégg nii ay néegi la ñuy recruter dugg na fi génn fii ba ñu xàmmee loolu ba ràññee la diituwaat ne benn bokkutoo ci association bi ñaar problème boo am yaa koy féetewoo encore une fois mangook nga lii mooy li nga xam ni mbokk yi moo tukkee ci kàddu yi Gris Bordeaux yi leneen li ci des nag ay xabaar la yoo xam ne ay rumeur la ñu koy ruumandaat ci suuf di wax ni CNRA dafa ciblé ay seen télévision di wax ni daf leen bëgg a tëj sabab li nag mooy euh, dafa mel ni dañuy alerter ak di topp li nga xam ni moom mooy événement yi di ko wanee ci façon boo xam ne daal dafa mel ni ñoom ñooy encouragé xale yi ci yàq gi ñuy yàq lépp lu ci topp ci ay xabaar yu ñu ci am daa ngeen ko jot asalaamaaleykum